fils de Lirou laaj ay siisam pare nañ ñu ne ko waaw sifflé na fëgal xale yi dañoo ñemente ndeysaan fëgal fils de Lirou jàppante nañu fëgal fils de Lirou jege nañu fils de Lirou fàq na ko fils de Lirou fàq na fëgal mu ngay caxabal dafa sori loolu matul mut kàlla dàq na ko mu kenn saaku yi fëgal la Fils de Lirou mbaa Fils de Lirou du génnaat saaku yi fàq na ko fàq na ko mu bañ Fils de Lirou ngay manœuvrer fëgal la Fils de Lirou ngay bëre ndeysaan Fils de plaqué na ko daw ak mu génn saako yi am faxat na ko Fils de Lirou ngay Fils de Lirou ngay accéléré mu ngay tóor Fils de na ñu ko ne woon yaa mën yaa ëpp doole ndeysaan fils de Lirou tey indi na dara ma ngay dóor fils mu koy caxabal caxabal na ko laa ilaaha illallaah fils de Lirou tànn fëgg la fils de Lirou mu ngor